mbokki senegaal bés ba dëkkmal na collectif international des talibé cheikh woote nañu muy katmiya ren nag ñu jàpp ko dimanche yemook ñetti fan ci weeru septembre ci institut islamique bu ndakaaru grande mosquée jàkkaarloo ak RTS la ko dalee juróom-ñeenti waxtu ci suba si ba ñeenti waxtu ci ngoon ci teewaayu ay kilifa yu ràññeeku ci biir senegaal ba ca bitim réew ñu war a waxtaanee ay tomb waxtaan yu am solo ba ca jëkk di tariixa tijaan ak taxawaayam ci wàllu yar ak yaatal jikko yu rafet ki koy def di oustaz Ahmad Fall di islamologue beneen tomb waxtaan wi muy tariixa tijaan jàkkaarloo ak dégg-dégg yu bees ci biir jamono Kay def waxtaan wa di professeur Makhali de bu université bu Thiès modérateur bi di El Malik Mbaye Bolle kon bes bango di besu Katmia collectif international des talibé cheikh di ko taxawé kagn la dimanche yemok ñetti fan ci wéru septembre ci institut islamique bu Dakarou grande mosquée ñu ci wo mboolem soppeek xariji nako na